salaamaaleykum wa rahmatullah patriote ser patriote maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare tet tet tet moo neex barke alxuraanu karim Sénégal moo neex Alioune maire de Dakar Plateau sa xonqaay bi ngay mel na tamaate ngay taxaw di wëyu wëyulu ak di bandi bandilu bandi du maanaam waa waa gis nga waa nguur gi ñoo desee doon ay wëyu wallaahi barke Serigne Bamba Mbacke buñ doon wëyu ba léegi convoqué na la ci licence de pêche yi kon do fi nek di tal di diger pir ay ambilaman ak di def ay conférence de presse di jema jaay wëyu xam nga yor sa kanam di ko melne bandi bandi nekul lu ni def ni meññeer dedet manam mm-hmm. nguur gi ño wara déclencher procédure yi parce que licence de presse yi liñ ci def dañe fang dajji mm-hmm. biñ jotee nguur gi sa licence yoy mom lañ arrêté dagg ko jën yi di taw ci géej gi ngir liggey bu bon bo xamne dang ko nga tay nga bëgg taxaw nan nangam ya demone bu ñuy sam fukki mbeureuk fukki mbeureuk téeméer waaw keesu yaboy 8000 francs te ja 35000 waaw yow ko yow yow jaay geej gi ñuy ñew nga nan da ngay jëma a ay amiran yow buñ ñu li war yow li nga sacc bu gennon ambulant maan yi ku nekk amum xey ya ngi yaa ngi nungu sin ya ngi nungu sin wallahi heure bi si kasa bi la la doon a fekk. heure bi bu la fekkoon ci kasa bi doo tal ay ambulans. man de te xam nga lu si gën a garaaw. waaw maanaam ambulans yi. waaw dañoo comprendre que ñi. waaw ñoom dañ leen a jël du dóor leen ci kaw nguur gi. Mm. waaw ñoom dañ koo comprendre. du man a sotti de. du mën a sotti. mën a sotti ndax xam nga lu tax. waaw xam na ne assemblée nationale élection mi ngi ñëw. élection maire yaa ngi ñëw. Mhm. te dañ koy perte. looloo tax ñu bëgg a jël askan wi. waaw maanaam ñi nga xamante ne ñooy ay marchands ambulants. bëgg leen a daw ci dal ci kaw nguur gi. te tax ñoom 12 ans yi fi nekk defuñu loolu. bàyyi ba ñii toog ñu koy def. waaw maanaam du jàll. mel na déguerpissement rek xanaa mooy liggéeyu maire moom. dañuy saboté kese mais dara du jàll <laughs> il faut procédure yi ñu déclenché ko pour que mën a convoquer ñii parce que licence de pêche yi dañoo bëgg mu leer. Ah waaw licence de pêche yi daa war a leer. bu ñoo ngi la gis nga taxaw nga mel ni mëkkatub suuf. waaw soppam ngaay. nga taxaw ne xaj li mëkkatub suuf. <laughs> di am looy wax. di nguur nguurug yàlla la caaxaan yàqu ko de. yàqu ko de. procès bi yàlla lan yor. bandi du xees. <laughs>